mbokk internet ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar TV dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci la gën a fës ci xibaar yi dañ koy euh, tàmbalee rek ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Papa Massata Diack moom nag euh, nekk doom ci kii di Lamine Diack nga xamante ni nii sax moom Papa Massata Diack moom la ñu ngi ko dalaloon ci émission Ahmed Aidara boobu di seen jotaay di amee foofu ci seen TV moom nag Papa Massata Diack lu mu daal di xamle rek moom moo di dafa mere lool ki nga xamante ni moom moo di. Youssou nduur ak groupe de presse am di euh, GFM ndax euh, gis na euh, taxawaay bu ñu taxawee ci lu ñel affaire papam boobule di Lamine Diack moom nag lu mu daal di xamlewaan rek moom moo di moom Youssou Ndour ak groupe de presse am boobu noonu ñoom ñoo gën a yokk xarmi karaw ndax ñoom ñoo nekk di acharné ci ki nga xamante ni moom moo di papam li génne ay information yoo xamante ne ni euh, teguwul fenn te moom sax Youssou Ndour euh, nekku nit ku reconnaissant ndax bu reconnaissant woon dëgg euh, groupe de presse am boobu dafay ne groupe de presse boo xamante ni dafay daal di indépendante du far fenn waaye nag gis nañ ni que tey groupe de presse boobu noonu day daal di jël ay parti maanaam day far ba noppi sax moom papam di Lamine Diack daal di woon na assister sax ci li nga xamante ni moom moo di inauguration bu groupe Futurs Médias boobu le ñu wax nag ci euh, jëf ju doy waar yoo xamante ne nii daal dina xewee foofa ci euh, Parcelles Assainies mu nekk euh, benn dispute boo xamante ne nii diggante Guel ak Farla nga xamante ne nii ñoom ñaar dëkk xuloo bi nag mu ngi daal di amee ci guddi ba alxames jàpp aljuma ci guddi vers une heure du matin ñaari ndaw yooyu nag nga xamante ne nii ñoom ñaar ay nekkaale lañu ñoom ñoo doon xuloo gannaaw ba nga xamante ne nii kii di xale bu jigéen bi dafa màndi woon daal di xuloo ak ki nga xamante ni moo di copain bi noonu la jël jëlee euh, li nga xamante ni moo di euh, doomam bi nga xamante ne nii sax euh, ab liir la mu daal di koy sànni ci li nga xamante ni moo di balcon bi ci deuxième étage waaye nag ba ko yi dégloo rek moom lu mu daal di xamle rek moom xale bu jigéen boobu le li waral mu def loolu rek moom moo di dafa mere woon trop ki nga xamante ni moom moo di faram boobu le faram bi sax nekkul ki nga xamante ni moom moo di bàyyi doomam bu jigéen boobu le nga xam xamante ni daf ko daal di jël si balcon bi xibaar boobu nag waa yéenekaay bi di enquête daal di euh, joxe bu ñu noppee ci loolu nag dañuy wax ci ki nga xam te ni moom moo di euh, Mbathio Ndiaye moom nag gannaaw ba ko waa euh, Seneweb dalalee moom nag Mbathio ci question bi nga xam ni daal nañ ko koy laaj rek ndax moom célibataire la wala marié moom nag dafa daal di lànk ne du tontu ci question bi ba tax na kii di animatrice bi sax moom dafa daal di insister ci question bi waaye moom Mbathio nag dafa daal di tontu ci li nga xam te ni moo di boobule question waaye nag ba tey bu ñu woyalee ak Mbathio Ndiaye ak interview doom boobu noonu sax euh, animatrice bi ba tey daal dina koy euh, laaj lan mooy euh, digganteem ak Youssou nduur moom nag Mbathio lum mu daal di xamle rek moom moo di Youssou nduur papam la xaritam la nit ku baax la si moom moom moo ko njëkk a yéegal seen ci beex si tax na mu ngi koy gërëm bu baax di ko sant dañ koy jeexalee nag ak génn àdduna beneen doomu Baye Niass gannaaw ba nga xamante ne nii enterrement bu Cheikh Ahmed Tidiane Niass ni ki démb la woon même vingt-quatre heures kenn beneen doomu Baye Niass daal dina génnaat àdduna kooku nag mu ngi wuyoo ci tur euh, Cheikh maxtar ñas moom nag moom moo daal di génn àdduna formation boobu nag doomam moom moo ko daal di joxe euh, di euh, Baye Makhtar ñas ci rajo bii di Alfayda mbokk internet yi fi la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar.